amin Cheikh fidèles internautes newoon naa leen len lenn rek du len rëcc ci li nga xamne rek mom mooy événement bi ma ngi ni taxaw ak wa safari ginnaaw show bi nga xamanteni rek def nañ ko ci bi salle bi yeungal ko machallah dama len di nuyu ziar len baye len rek ñu ak internautes ñu seetaan à travers VIP People ma ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay ma chérie di contane rek xamna di voilà ci soirée bi ñu invité ni nga xamante hommage ñu rendre suñu Papa chon la ak pap Diouf di ñaan yàlla yàlla yërëm len xaar len aljana vraiment. mbégte la très ñu ñëw fi parce que voilà ñu ñu donc tay suñu waréf la ñu ñëw fi xana très rek soirée bi vraiment na trop machallah machallah ah, ñu ñëw ci ki machallah wala la ah machallah est-ce que mën nga li nga sax. voilà ah humain. et puis du remercier suñu sista aida mo fi voilà di def ay tenues magnifiques toujours à l'honneur de la femme africaine voilà wa donc euh, voilà je pense que wax c'est toujours un plaisir jàkkaarloo euh, téléspectateurs VIP people voilà di leen ziar di leen bége ah di voir wax safara yi ngi ñëwaat rek ci album bu bees xam naa ne gars yi donc on en profite pour wax ko <laughs> ñoo leen raw fouf. donc dañuy profiter rek le message bi inshallah bientôt inshallah on vient avec un album <laughs> <laughs> bon merci beaucoup je pense que nous wax nañu lépp hein. donc c'est un plaisir d'être là ce soir donc euh, soirée chic et glamour la ñu wax